Auchan ma nga ci biir kër gi. ak seen teraanga pourquoi nga jël Auchan bàyyi seen teraanga. Ah? te gis naa la ci benn. mais Auchan ma nga fa défendre seen teraanga mi foofu. xoolal xoolal ñun dañoo yor dëkk. da xam luy Auchan ci man man Auchan concurrent la ci man. man am naa période. loolu kay moo jaaxal nit ñi. waaw d'accord xam nga lu tax bëgg a defar. dégg man li nekk concurrent ci man may collaborer ak ñoom ak a bari ak kabari. mais Auchan dafa jege marché bi Serigne alors que dafa am une distance bu ñu wax ne. na nekk ci digg euh, marché euh, bi sax. waaw mais xam nga lu tax xaaral ma wax la xaaral ma wax la déglu ma wax la ah. déglu xam nga yéen yéen a am problème mais man maay président chambre de commerce commerçant yi amuñ problème amuñ problème Auchan. xaaral ma wax la rek soo ma bàyyi ma wax la rek. Hmm. soo ma bàyyi ma wax la ci ñoom laay dund. du dañ ne woon dañ ne wax président lu taxoon ñu suspendre Auchan bi dañ ne koon Serigne bu bu fi indee Auchan doo gagné Kaolack mais ñàkk ga fa Auchan war ñoom moo tax ñu perte ko parce que Auchan xamal ne dafa amal njariñ ñun niñ ko tëggee woon tëggee wuñ ko noonu Kaolack dafa am ay transformateurs de produits locaux c'est des milliers de personnes mm-hmm. millier de personnes yoo xam ne nii dañoo signé woon ak ñoom bu ñu paree seen produit Auchan daf koy jaay soo gisee ma dëgër ci loolu la du man man Auchan fay na ma li ma war a fay location ba nopp su ñëwul tamit moom mooy perte kon man soo gisee ma dëgër ci moom mooy li mu waroon a indi Kaolack du Auchan rek suba na Carrefour ñëw mais commerçant yi ñoom ñoo la gën a xam seen teraanga maa nga fa on l'encourage bien dañ ko war a jàppale gis nga man xam nga ban lan laay contre ci ci ci ci ci investisseur étranger mooy ñi ñëw jël suñ fonds public mooy dem liñ lay fay jóge trésor nga dëkk bitim réew booboo bon mais Auchan bu fekkee dafa ñëw indi xaalisam créé ñëw li war a fexe mooy mu fexe ba produit yi du ko importe mais bu koy jënd local. Mm-hmm. li ñu war a fexe ba nga xam ne nii mooy management bi. Mm-hmm. du bari tubaab. te loolu am na. Mm-hmm. mais li ñu war a fexe moom mooy ndax population bi soxla nañ ko. mais population bi nañ ko Auchan bu baaxul ci Sénégal day tëj. alors moo tax li ñu war a def mooy. d'accord nag d'accord nag su ma amoon doole. su ma amoon doole damay soutenir. xoolal su ma amoon doole. su ma amoon doole may ma ma wax la may ma su ma amoon doole. ma mën a décider damay soutenir seen teranga damay soutenir Baye Ciss ba Auchan du fa ñemee taxaw comme ni marocain yi def